télé futur média mbokk yeeg xarit suñu seetaan daleen ak jàmm ci xibaaru diggu bëccëg gi li ci gën a fës euh, ca euh, Dakar euh, fii ci gouvernance ay jàmmaarloo moo fa am diggante takk der yaak ñi doon liggéey ci conseil régional ba ñoom nag li tax ñu amal seen toogaanub ñaxtu seen ñetti weeri payoor la ñuy laaj ba tax na ñu indi ay jafe-jafe ci dem beeg dikk bi daañu dem ca gouvernance fekki fa Fatou bintu Konté tey di ñaareelu bësub grève liggéeykat yu gox yeex gox goxaan yi ñu ne nag ci bërëb yu bëri lu ci mel ne centre état civil ak bërëb bu fajukaay yi liñ fa gis mooy mbir mi dafa tagatee mbi ki ngeen di seet noonu bokk na ci ñi bokk ci boobile grève mi ngi wuyoo ci ceex Thierno Abbas Ka mu dellu si waat ci boobile grève ak jafe-jafe grève boobee sax moo waral sunu teewaayu sunu gan di Sidia Ndiaye Sidia Ndiaye ma lay nuyu

kuréelu imaam ak ulema yu Sénégal nee ñu daañu dox ay tànk jàmm ca diwaanu Palestine bu nu sukkandikoo ci ki yore seen kàddu ñoom seen kuréel googe nee na leen tax a jug moom mooy def fay dox ay tànk jàmm ba diggante Palestine ak Israël. ñu def ca seen kem kattan ba jàmm dellu siwaat ci boobi boobilee diggante lu jëm ci euh, mbirum Serge Lazarevitch euh, dina kap otage bu nu jàppoon ñu bàyyi woon ko euh, ngir tamit ñu daal di bàyyi yeneen ne ñeenti jihadis maanaam weccoo moo ci amoon Ibrahima Boubacar Keïta jiitu réew bu Mali àdduna ci mbir mi démb la yëkkati kàddu yi fii ci Ndakaaru ne na nag bu kenn ne dafa wan ginnaaw yoon ak yoonal ñeent ñooñee dinañ leen jàpp ba noppi kenn ca ñoom njort na dafa def beneen ñaawteef nee na buñ ko jàppee dina xam ne euh, basi góor a koy bay ñu wax ci politik euh, euh, gëstu bi jëm ci wàllu politique tey ji ñu jagleel ko ñi ànd ak ñi nga xamante ne si ñoom nguur gi ñu ci parti nguur gi wala bokk ñu bokk ak ñoom funu fete féete ndax ñooñee war nañoo mën a joxe seen xalaat bu dëppoowul ak ni ko nguur gi askan wi joxe ci seen kàddu ñu seen xam-xam màcc yi jëm ci wàllu politique naka non mbokk yi li mooy ponk yi fi gën a da ngeen ni ñu faram ko daleen jàmm ci xibaaru diggu euh, bëccëg gi niñ ko waxee woon xibaar yi tey ji ñu am gan muy euh, Sidia Ndiaye ma lay nuyu di rafetlu sa teewaay. maa ngi lay fay di la gërëm ci invitation bi. di fàttali ne yow bokk nga ci kuréel gii di FGTS tey ji itam euh, ku wax Ndakaaru tudd grève bi nga xam ne liggéeykatu gox yee gox goxaan door nañ ko muy grève bu 72 heures ñetti fan mu mel ni bërëb yu bëri mbir mi dafa tagga témbe ñu bëggoon nga dellu si ci coow li ana lan moo waral. maa ngi lay gërëm di gërëm audit téléspectateurs yi aussi di préciser ne que aussi grève bi du FGTS rek moo ko sumb intersyndical liggéeykatu collectivité locale yi nga xamante ne bootu na FGTS CNTS CNTS FCEC UNSAS ñëpp ñoo lëkkaloo pour véritablement euh, mener combat bi nga xamante ne vraiment dañu yaakaar ne dafa légitime ak juste pourquoi parce que ñun dañu doon liggéey ci ville de Dakar par exemple ak ville yu bëri Pikine Rufisque Guédiawaye parce que lu xew Dakar moo xew foofu Pikine laa jógee nii ci benn assemblée générale ci at bi ñuy defee réforme bi euh Dakar par exemple boko xayma 1684 agents lañ jël yóbbu len ci euh, arrondissement yi nga xamante légui commune plein exercice lañ. biñ koy def nak ñun averti nañ ne leen nag bu len indi perturbation parce que ñun. dañuy liggéey normalement laaj ñu dara. réforme politique indi nga gon am ngeen sañ-sañ en tant que politique ngeen def ko waye nak plan social na ngeen maintenir né li ngeen di def du redéploiement kessé substitution d'employeur la manam nga jël sidi Ndiaye jël ko ville de Dakar yóbbu ko ci commune de goré léegi commune de goré war ko fay do xam nga ne kooku changé mm-hmm. donc dafa am conséquence lu yoon wax moy substitution d'employeur employeur code du travail dafa li wax dafa leer da nga wara jël droit ak yépp nga transférer ko jox moyen aussi bon booba léegi ñu né problème du am ñu suñu arrêté bi redéployer nit ñi ñu ngi ni tay waxtu bu may waxee nii kenn jotul xaliss mm-hmm. xam nu mu démé tay ñun am nañ information que ne ville de Dakar maintenant à la disposition a eu 700 millions qui font de dotation. Mm-hmm. donc mu deux mois de salaire presque. Mhm. parce que ñoom salaire bi boo ko xaymaa deux cent trente quatre mille. Sidia doguma la mu mel ni jafe-jafe boobu ngeen di dund ñeneen ñi tam ñu ngi koy dund. Mhm. muy liggéeykat yi nekkoon euh, conseil régional téeméer la ñu toll ak ñaar fukk ak ñaar nañu ko waxee woon ci bopp xibaar yi. Mhm. Euh, dañoo xëy dem taxaw ci buntu gouvernance toogaanu ñaxtu lañ fa am mujjee si ay jàmmaaloo ndax dem baak dikk ba la ñu indi ay jafe-jafe Fatou Bintou Konté la ñu fa yebal Fatou Bintou maa lay nuyu. waaw mu mel ni sax euh, jàmmaarloo mujjee naa am bu fekkee ni it tàngul euh, benn tàng bi waaye it dem ba dikk ba xawoon naa may jafe-jafe foofee euh, ci centre ville. waaw dëgg la woon léeg-léeg gis nga xawoon na am ay jafe-jafe ci centre ville bi ndax ex travailleur conseil yi tey dañoo xëyoon. dem gisante gouverneur ba ñu génnee ci buntu gouvernance bi nag ñu jékki-jékki rek improvisé benn genre marche taxawal lépp li nga xam ne moo doon dem ak dikk bi ci buntu oto auto auto dikkul ba mujj ki daal yi fi xaw a jaxasoo ba police jékki-jékki rek nag policiers yi ñëw police plateau ba ñu ñëwee commencé leen a dóor ñu xaw a jàmmaarloo tuuti même bu jàmmaarloo gi takkuwul dara dara waate xaw na ñoo jàmmaarloo tuuti fee ca buntu gouvernance bi nekk fee ca place de l' indépendance travailleur ex travailleur conseil régional yooyu nag ñoom la leen métti ba tey jii ñu wane seen seen colère ci buntu gouvernance bi moo di dañoo toog ñetti weer boobu ba léegi kenn fay ndax ki nga xam ne mooy ilimaanu juri bi Mouhamed Boun Abdallah Dionne gannaaw bañ fi defee woon grève de la faim dafa wa leen waxoon ni duñu am problème salaire ci nekk décembre 2014 boobu ba léegi benn yoon lañ leen fay kenn fayatu leen ñu toog ñetti weer kenn fayu leen seen salaire ñu nekk ay père de famille ay mère de famille gis nañ ci sax ay ñoo xam ne ay jigéenu wéru lañu bari nañ ci loolu ci nit ñi fa toogoon ba tax ni daal ñu nekk ci ay jafe-jafe yu metti ndax ñenn ñi ne nañu génne nañ leen seen kër yi ñenn ñi ne gëj nañoo fay luwaas ñenn ñi ne ba ñuy jugee seen kër sax joxew ñu fa dépense sàkkantumaa paak bi nga xam ne moom moo leen indi fee te buntu gouvernance ba tax ni daal ñuy ñaax ñoom jamono ji ki nga xam ne mooy njiitum réew mi mu jàppale leen ñu fay leen li nga xam ne moom mooy seen salaire te nag nee nañu bañuñu ci dara nag bañuñu ci dara jamono ji fu mu yem neex lépp luñ ci mën a def pour nit waaye dégg leen ñu jox leen seen salaire di nañ ko ci def baare tal yi tànk nay nee na daal jamono ji ñoom travailleurs yi nga xam ne ñoo nekkoon conseil régional bu ndakaaru bañuñu ci dara jamono ji Fatou Bintou Konté ñu koy jaajëfal ci leeral yi mu ngoog bu weesoo itam liggéeykat gox yeex gox goxaan yi ñeneen dañoo xëy ñoom it maire ba futtu di laaj seen i payoor Sidia mu mel ni jafe-jafe yi bëri na ci dëkk bi waaye ñu des ci ponk bi nga xam ne moom leen soxal mu mel euh, acte 3 de la décentralisation bu fekkee itam teg nañ ko ba noppi euh, conséquences ya ma ngay wéy waaw xam nga ñun wax nañ ne réforme bu toll ni boo koy def il faut nga def nga am vision nga ma am ay mesures d'accompagnement parce que dina am compagnie étude d'impact. mom lañu deful ca njalbeen en amont parce que buñ ko defone yeb du am conseil régional bu mi wax ni maa koy ñaawlu parce que euh, vraiment liggéeykat son nañu. ça fait 2 mois léegi ñu dugg ci 3e mois fay ñu leen. Mhm. chaque jour ñu ne ëllëg la suba la mais loolu mënu dem te premier ministre amone na réunion bu mu def ak ministre de l'Économie, ministre des finances pour que ñu harmoniser sen position pour que l'on baña amati. bi defé grève de la faim légui problème ñëwaat na dafa melni ni euh, gestion bi de noir parce que ñu nek réew bu tollu Sénégal mu am ay ay ay am ay mënu ñu gérer problème yu melni mm-hmm. té question de suivi la premier ministre dafa newoon nañu créer comité de suivi. Mm-hmm. mais que l'on buñ ko créer woon dinañ don top affaire ah. mais ba légui ñu amul dal responsable dafa dafa kenn personne n'est responsable. Ah. loolu nag ñu ne euh, nguur gi débloqué na koppar yi jëm waaye commune yi ñoo ko bloqué mbir moom nan la demee ak nan la tëddee ndax bu fekkee ni koppar yaa ngi ci commune bi euh, normalement jafe-jafe warta am ci liggéeykat yi. mais jafe-jafe wartu am ci liggéeykat yi parce que koppar yi de egg na. Hmm. man vérifié naa ko même ce matin rek dem naa vérifier. kon donc problème mooy moo manque de volonté la. xam nga boo yoree responsabilité bu toll nii kii da nga war a gérer parce que ñoom lu ñu bëgg mooy bu ñu leen bayee ñoom dafa mel ni dafa ñoom dañu dañu am bor boor yooyu la ñu bëgg a jël fay ko ci li nga xam ne xaalis bi ñu leen jox. Hmm. te loolu mënul dem parce que en de finance publique dépense yi dafa am priorité dépense personnelle moo gën a prioritaire que yeneen dépense hmm. donc li ñu bëgg a def dañuy ñoo tax ñun ñu ne dañuy lancer appel état mu bloqué compte mairie yi tant benn mandat duñ ko fay buñ ko defee affaire day ngaaw. Hmm. parce tey ñun doolu duñ ko seetaan tey duñ ko seetaan te doo combat bi dafay gën a law parce ñu ngi nii déposé

bëgg nag ñu nekk à ñëw di sacrifice loolu duñ ko seetaan duñ ko nangu loolu na leer autorité yi nañ jël seen matukaay mooy mairie yi mm-hmm. actuellement ñoo yore koppar nañ ko génnee mm-hmm. buñ ko génnewul nag lu ñu lancé état mooy mu defal leen mu servir leen léegi euh, li nga xamante ne mooy euh, obligé leen mm-hmm. parce que état am na sañ-sañ boobu parce que dañu fàtte ne collectivité locale naam am nañu libre administration des collectivités locales mais ay démembrement état la bu ñu demee ba troubler ordre état bi warna jël ay matukaay mu servir le li nga xamantene moy obligé len ñu fay agent Sidia ay borom njaboot ak ñoo xamante ci dafa am ñu ne ci seen ginnaaw toog nañu fay ñu len euh, moralement euh, naka lañ démé ak naka lañ ak njaboot gi. mais affaire dafa metti gis nga man sama bop da ngay dem ba sa liggéeykat yi sa doli mënoo xool parce que man aw ma xaalis bo xamante ne mun naa leen bu ñu ñëw sax ci rencontre yu melni du ñu am sa passe pour dellu yow da ngay raser les murs ak sa responsable mais dafa metti mais et puis mais li nga problème yi. problème yu ndaw la. moo tax vraiment bu kilifa amé ñu muy dégg. kilifa réew mi premier ministre surtout parce que mo mo bu grève de la faim amé mo ne woon nañu régler problème ñu créer comité de suivi lolu yëpp bu amee mais problème bu am. mais dafa melni lu neex way def. nag ci réew bu bu normal lañ nekk. Ah. nañu organiser seen. organisation bi ngeen ngeen ngeen sàkkuwaay it. Hmm? ñeneen mooy askan wi ñi nga xamante ne dañuy dem ci centre état civil yi dañuy dem ci bërëbu fajukaay ñooñu euh, li ñu wax moom mooy euh, maanaam kenn préparé wu leen woon ci ci ci grève bi ñoom euh, itam bu fekkee ne ànd nañ ci seen xeex itam ŋàññi nañ benn doxalin bi parce que jàpp nañ ne mënoon ngeen am jaar feneen askan woowu yéen ban explication ngeen leen di jox. waaw explication bi dañuy masawu ñëpp ñi nga xamante ne ñun daal du suñu coobare lañu jog rek def gi parce que affaire dañ ko yeglu nañ wax nañu son nañu extra euh, légui problème amna mo tañu assurer ci yenn points ay service minimum comme surtout santé yi parce que urgence bu ñëw il faut nga jël donc lolu def nañ dispositif bi aussi ci état civil mom euh, il faut ñu tej ko parce que aussi boy def grève aussi moyen yi nga ngay tej parce que bu fekkente ni da nga ni da nga grève nga ubi aussi affaire yi c'est vrai que metti na mais ñun duñu ay ñoom nañu wax aussi autorité parce que ci lañ bokk ñoom nañu autorité yi da war ko mën a éviter ma ne lii affaire bu ndaw la boo xamante war nañ ko mën uh-huh. parce que bu ñu leen serviroon tey euh, nga xamante ne mise en demeure mise en demeure bu ñu leen servir ñu réglé parce que yoon dafa ne bu fekkee ne ñoom mënuñu fay préfet am na sañ-sañ mu jël mandat de paix. Mhm. donc loolu donc léegi nag responsabilité yi ko situé. Mhm. ñun liggéeykat yi nangu nañu ne ñu ngi en tout cas masse population yi vraiment surtout santé man vraiment loolu moom ma gën a métti. parce que ñun mos lañ dëgg ni dañu dëgg grève demoon nañu fi sax xamoon nga ne programme woon nañu fi grève ñu levee ko. Mhm. suspendre ko lu ko indi woon mooy dañu ñun xam dañu xam ne collectivité locale lan la parce que dafa mel ñii xamuñu bu ñu déposé préavis bi ñu war ci l' ensemble du pays. 600 collectivités locales yi loolu a euh, waaye bu bërëbu fajukaay yooyu nga wax foofu la ñuy taxawandi. Hmm. ndaxte ku nekk xam na ni bërëb yooyu askan wa dañ fay xëy di dem rédaction bu Télé Futurs Médias itam naka noonu xëy dem seeti kenn ci ñoom kookee cardiologue la nekk ci bërëbu fajukaay mi ngi wuyoo ci Thierno Abass Ka médecin chef la euh, ci centre de santé bu Ngor moom it bokk na ci grève bi waaye sëriñ bi itam nee na euh, ni nga ko Sidia waxee mbir bi neexu ko waaye nag ay borom njaboot lañu yoo xamné ne faaw ñu fay leen ndax ndaxte it dañoo yor seen sutura soo xamante ne euh, faaw it ñu jappalé leen ci liggéey bi Aïssatou Paye Fall ak Abdou Karim Diop. Thierno Abbas cardiologue la bokk ci grève bi nga xamné ne travailleur santé municipale yi ñu koy def jaaxle dikkal ko ndaxte mënta faj ay maladam danaka mom jotul sax di xalat bopam amna ay ASC yi nek sama service yo xamné ne tey tey bu wër bi deewee ci recette hôpital bi lañ leen di fay mais bu féké liggéey ñu wala ñu fa nekk. feekuñu normalement duñu mën a liggéey liggéey normal ba ba recette am ba ñu mën leen fay te samay travailleurs bu ñu leen jëlul en charge dans les conditions ci biir hôpitaux yeeg yooyu duñu mën a faj seeni feebar ba mën a ñëw ñu jël leen en charge am na arriéré de salaire bu ci nekk mais li ci gën a am solo mooy statut médecin yi statut travailleurs municipaux yi ci statut boobu mooy que euh, dañ leen jël yóbbu leen ci mairie yi te bu ñu leen yóbbee ci mairie ñoom xamuñu fan la ñu féete waaye mu mel ni dañ leen tànkamlu. dama yore ay engagement yoo xam ne bu weer bi deewee da ko war a honorer que muy samay problème de famille muy samay problème élève ak yeneen ak yeneen mais aussi travailleurs yi may nekkal ci sama centre de santé bu ñu nekkul ci conditions yi normales ñu liggéey. fu mu nekk nii ñu ngi toog di dundee yaakaar. fi ba fi ma toog nii léegi léegi nii dégguma benn autorité boo xam ne réagir dégg naa daal ñu naan ma tey que ministre la santé dina def visite ci yenn centres municipaux yi. maintenant ministre de la santé man ba tey déggu moom wax ci donc mu ngi ñëw di visiter suñu centre yi xaw exactement bu ñëwee lan la ca la la fay wax ak la la fay indaale mais ba tey fi ñu toog ni du ministre de la décentralisation du ministre de la santé boo xam ne ou beneen ministre boo xam ne dégg naa ko rek moom ngaa nam mu nekk grève boo xam ne bu naree yàgg ñu muy lor dina bëri ku ci mel na Thierno ak ay njoñam bëgg seeni statut soppeeku ba ñu mën wéyal seen liggéey ni mu waree Sidia Thierno Ka wax nako neena sax ñom ñi ngi deg ne jëwriñ biñu ñu denk wal wérgu yaram dina ñëw sét ci len euh, ku wax jëwriñ biñu ñu denk wal wérgu yaram wax euh, nguur gi ndax nguuruk Sénégal bi ngeen sosé tambalé grève bi ba légui bi ngeen ci sobo ñom ñëw nañu def ay jéego wut si leen. ñun paré nañ ñun nguur gi li ñu wara def def nañ ko jox nañu gaay xaaliss bi yeen wara dem jàkkaarloo ñoom mais loolu lañu def ñun parce que ñun duñu mënul nangu moy. Mhm. Euh, responsabilité dañ ko war a teel a situer éviter ay grève parce que grève dafa am conséquence tey bu nit ñëwee malade mu am ay problème yoo xam ne dañ ko jël urgence jëluñu ko wala traité wuñu ko mu gaañu xam nga ne loolu mën nañu ko rattraper. Mhm. parce que boo xoolee lu mel ni wér-gu-yaram mu trompé bu trompé mu dem ci boutique jëndaat tissu waaye doomu aadama bu ñëwee nga rateere wala bañ amul soin mu dee kan moo koy réparé xam nga ko dee dem extra euh, mhm. donc loolu moo tax ñu war a conscient ne li ñu jox lan la xam nga euh, problème bi mooy ñoom dafa mel ni nguur ci boppam xamul lan mooy doole

parce que mais mënta ñàkk nag. mënta ñàkk mais xam nga euh, ci li ma métti mooy. Hmm. xam nga grève ñun syndicat yi dañ ko du bëgg utiliser tout le temps en tout cas surtout ñun au niveau des collectivités locales parce que ñun xam nañ li ñu yore. alors bilan bi ma ne la Pikine laa jógee ni Guédiawaye ak Rufisque et cetera ñëpp commencé banque seen loxo bu ñu ko continuer nii ba ñu moom dem ci Sénégal yëpp dana métti trop ci askan bi te ñun santé de base bi comme ni ma la waxee ñu parce que état bi daf ñu transférer ay compétences te politique yi bon nañ xam ne politique passé na élection yi jàll na. Mhm. ku laaj la ngay jox nañ la ko dañoo laaj laaj xeex fii xam ngeen ne deux mille et quelques listes ku nekk bëgg a nekk maire ñu par leen léegi mënuñu gérer ma ne état bi moom may dëgg ku doxalul affaire yi na jël ay matukaayam ñu dégager la teg fii délégation spéciale. loolu ma wax ji voilà beneen ponk itam muy euh, fan ngeen jëm ak bile xeex ndax euh, fan yi ngi doon dégg sax altine ngeen wax benn préavis de grève xaw ma fa leen ci toll li ñu bëggoon a xam moom mooy seen prochaine étape lan la. waaw prochaine étape mooy bu ñu déposé préavis de grève. Mm. mooy que ñu toog ñu globaliser problème yi. Mm. recenser difficultés yi ñu teg ko ci yoon. bu ñu ko defulee grève générale bu ñu ko déclenché man la fii ba fongalim yëpp dañ ko tëj ma yaakaar ne loolu vraiment du loo xamante ne parce que

di fàttali ne euh, da nga doon waxtaan ci li nga xamante ni si moom moo soxal euh, grève bu liggéeykatu euh, gox yi gox goxaan ñu naan leen collectivité locale beneen ponk ci xibaar yi mbokk yi ñu leen ko waxee tey di bés boo xam dañu ko jagleel bañ a dem ci banque ñu def constat bi li ñu gis moom mooy ñu bëri ci askan wi loolee yëguñu ko woon ba tax na ñu ngay wéyal seen liggéey wala sax soxla bu am nañ ko ya ña nga dem ñeneen ñi moom gis ne loolee lu mën a nekk la ndaxte it ko liggéey Maimouna Ndiaye ak Diafara Ba ci ay leexal leeral. franchement yëguma yëguma journée boobu. non yëguma ko woon. mu mel ni kuréel gi ëmb way jëfandiku yi ci wàllu banque li ñu bëgg def tey jii mujj la antu ndax liggéeykat yu bari xëy nañu dem banque ne yëguñu woon tinuñu muy lu leen metti nag. franchement yëguma ko woon su ma su ma yëgoon du ñëw parce que li ñu kaas suñu intérêt la quoi loolu ma tax yëguma su ma yëgoon sax du ma ñëw. normalement suñu seen client yëpp lu ñu waroon laaj. war war nañ ko def seen client quoi. parce que ñoo tax ñu ñoo tax ñu ñu ñëkki fii donc war nañ taxaw ci loolu. ñu bari ci ñu dékk suñuy micro nee nañu toog bésum lëmm doo dem banque mën naa ne ndax banque yi seen dara yombul. ñoom bu ñu buggee motiver les gens bu ñu bëggee euh, nit ñi ñëw ci ñoom dañu war a wàññi wàññi wàññi taux taux bi. li ñu laaj ko bëri na trop dëggantaan seen intérêt li ñu laaj intérêt moom bëri na carrément wallaay carrément. warul warul warul laaj yooyu yëpp yëpp quoi dëggantaan. li ñu def nii man naqari na ma quoi parce que man amaguma dara amaguma jabar amaguma oto amaguma kër li may versé sax léeg-léeg man presque ñoom laay liggéeyal parce que man ñu may dagg soo ko génnee ci li may fayeeku ba moytuwul liy des su ma jëndee saako ceeb ci lay yem. am ñu ne déet nañu xoolaat leneen ndax du muy banque yi mënta ne. ah mais léegi boo waree retiré ci xaalis bi nag loo xam ni envoyé nañ la ko parce que saa ñoom mënoon nañu waxtaan ak gars yi ba rek quoi bu ñu waxtaanoon gars yi nii. peut-être gars yi dinañ trouver solution bu ko defee ñoom ñu jox leen bëgg quoi ku nekk am lu ci bëgg. toog bésum lëmm kenn du dem banque am ñu ci kaw waxtu bu mu Maymuna Ndiaye ñu lay sant di la gërëm kuréel gi lëkkale imaam ak ulema yu Sénégal dañuy dem ca Palestine loolu mooy seen kàddu bu nu sukkandikoo euh, ci seen secretaire général association boobu boobule liñ ci jublu nee ñu dox tànki jàmm tax na sax dàq ñu dem euh, Palestine te na mu gën a gaawee dañu koy euh, teewlu imaam jën ay kàddoom Salimata Aw Seck moo ko taataan ànd ci ak ki nga xamante ne si moom mooy Abdou Karim Gueye. waaw suñu tukki bi ci Israël tukki bu bu bu bu bu nekk la tukki la boo xam ne dañ fa waroon dem pour yóbbu leen jàmm ndax bi ñu waxee invitation Israël ñu wax ko président de la république mu nangu ko ñu wax ko ministre de l' intérieur it mi nga xam ne mooy yore suñuy ministère mu nangul ñu ko rafetlu ko ñu daal ne kon nag ne ñu ànd ak ay journaliste ñu dem foofu ndax lu ñu fa gis wala lu ñu fa def journaliste yi mun ko wax ñu ànd ñun ñëpp doon fukk ak benn ba ñu demee jàmm lañ fa uti woon yàlla dimbali nañ ci am nañ ci ay ndam yu bari noonu lañ ko nar a fesee def ci Palestine très prochainement bu ñu amee autorisation bi rek population bi dinañu dem wax ak ñoom ndax waruñu toog ba xaar ñu rey araab yëpp wala ñu toog ñu xaar ba ñu rey juif yëpp kooku dootul amati sens comme ñoo bokk maam bokk fu ñu dëkk bokk bokk ci li olof Ndiaye di wax ja dëkkandoo jàmm ci gën kon nag nañu def jàmm te. waaw loolu mënu ci ñàkk ndax kuy def lu baax ku nekk foog mu am ñoo xam ne yu jóg ne li ngeen lu baax li ngeen di dox baaxul mais lu baaxul ñëpp xam nañ ko lu baax ñëpp xam nañ ko. yalla ñu yalla defal jamm te ñi def lu baax rek te uti lu baax rek te yalla ñu am ndam ci inshallah allah. ni ñen ko waxe won ci bop xibaar yi mbokk yi ibrahim Boubacar Keita njitu rew bu Mali aduna ci euh, mbir mi soxal euh, Serge Lazarevich ak euh, ñi nga xamanteni ni si ñoom ñooy ñeent ci ay jihadiste mbir mi dafa mel dal ak weccoo mo ci am ba jihadiste yoy ñu bàyyi IBK di dalal xel yi neena wanul ginnaw ak ak yelleef fonul ginnaw yon ak yonal limuy def rek moy def sen kem katan ba tek leen loxo ñent ya it bu ñu leen jàppee nee na kenn ca ñoom moom bu yëgoon dina des ca kaso ba ndax njombe la mu def fàttewuñu ko dañu koy teewlu Ibrahima Boubacar Keita ak Mody Gueye ay kàddoom Adia Talla moo nu ko tekkil ci wolof. Quand on dit IBK tourne le dos Euh, a contribué à relâcher des des terroristes. IBK ngi dumooyu yoon IBK ngi libéré ay terroriste dama bëgg leeral mbir mi du si càggine France daf si def kéem kattanam wante dogal bi ci lëkkaloo Niger ak France lan la xewee ni ñenn ñi amee sañ-sañ teg loxo benn doomu France te du coobare boppam rey keneen ki doon garde benn kaso kooku mënul mucc yoon. bu doon mam la woon li may gën a taamu mooy ñu tëj ma kaso sama diiru dund. wante du ma rey nit ñun nag xam nañ lu ñuy def jalgatiwuñu benn yoon wante waruñu téye nit ci kaso diiru ñetti at boo xamante ni jéye bi bu muy am rek li ko yóbbee rek mooy fekkee ko yegg si nañ ci xibaaru biti réew yi doore ko ak Pakistan njombe la fa am euh, barki démb ay tout tànk yenu fa faat waaye it ban ki mun njiital mbootaayu xeet yi ñu koy xaar euh, fii ci Afrique sow jant na mun nar a àddoo ci Ebola beeg ni mu fi lëmbee xibaar yi biti réew yi faatu ki ne dem lañ ci yàndal njiitu mbootaay xeet yi Ban Ki-moon ñu ngi koy xaar du yàgg lool euh, ci ñenti réew yu loru ci jàngoro Ebola ci Afrique euh, saw jant bu ñu sukkandikoo ci ay xibaar ci mbootaay xeet yi bokk na ci Guinée Libéria Sierra Leone ak Mali jàngoro ji nga xamante ne nag mi njëkk a feeñee euh, ci bëj saalumu Guinée lu toll ci juróom-ñaari junni doomu aadama ñàkk nañu seen bakkan ci lim googee nag gis nañu ni fukki junni ak juróom-ñett ak juróomi téeméeri kaa lañu woon waaye boo seetee ca Libéria ak Sierra Leone téeméer boo jël juróom-ñeent fukki ak juróom-ñeent ñoo ca ñàkk ñàkk seen bakkan euh, ci Mali nag juróom-ñaari doomu aadama ñoo faatu euh, ci jàngoro yi Ebola mbootaay xeeti nag euh, teg na ab mission boo xamante ni gën a xeex jàngoro yi Ebola moo ko tax a jóg boobaak léegi mat na ñaari weer siège am ma nga nekk ci ak Accra ci àllarba ji Pakistan daal nay fésal nag ni lépp loo xamante ni nag jëm na ci pend de mort maanaam ku faat bakkan ñu faat la amatul lenn luñ cay def ci wàllu jëflante loole nag yemook ak tey yi nga xamante ni réew ma tamit ma nga daal di dekkal ñetti bis yoo xamante ni nii jàpp na ni nag deuil la ginnaaw euh, doomu aadama yu ñu faat démb seen lim toll ci téeméer ak ñeent fukk ak euh, benn euh, ci lim boobee téeméer bi ak fanweer ak ñaar ay écolier lañu ñu ngi jàngee nag ci benn lekkool boo xamante ne nii da doon tàggat ay xale ci wàllu ko soldat loolee nag ma nga xewe woon ca Peshawar nekk ca bëj saalumu réew ma ñaawteef boobee ñi wax ni ñoo ko def ñu ngi duppee seen bopp ay taliban Pakistan loole nag dañu ko def ngir fayu ci song bi nga xamante ne nii l'armée ba songoon na leen ko ca Waziristan

mu nekk nag njiitum réew bu njëkk foofee eh, di nit ku ñuul ci atub 1994 jàpp 1998 loolee gannaaw régime ba nga xamante ne moo fa nekkoon ñu gënoon ko xam ci ségrégation raciale eh, téere boobee nag nañ jàpp ni 10 chapitres ñoo ko fas yéene eh, tënk lépp Mandela moo ko bind mu nekk nag koo xamante ne xam nañu ko lool ci xeex apartheid ci lépp loo xamante ne rek jëm na ci boom doomu aadama ak xeet nit ku ñuul ci weeru décembre atum 2013 ci la génn àdduna ba mu amee juróom-ñeent fukki at ak juróom livre boobee nag mi ngi ko tàmbale woon ci atum 1998 waaye gannaaw bi da koo dakkaloon ndax wér-gu-yaramam mayetu ko woon ci atum 2002 la woon football la ñuy dooree tàggat yaram ak sunu euh, gaynde yi na def ci euh, seen regroupement tàggatoo yi ñu door ko ñetti fan jàpp juróomi fan euh, ci weeru janvier fii ci ndakaaru laata sax ñuy jël sunu raayeb réew ci loxo yi njiitu réew bu Sénégal door a wutali Maroc foofe la ñu defale seen waajtaay bu mag ba jëm ci CAN 2015 ñu nar ko jàpp ci Guinée équatoriale jàpp leen suñu gaynde yi dinañ toog ca Maroc ba fukki fan ak juróom benn ci weeru janvier laata ñuy dem mo ñu des ba tey tàggate dam ak euh, association di euh, kuréel euh, gi yëngatu toppatoo ñi nga xamante ne si ñoom ñooy yëngu ci wàllum tàggat yaram di ay taskatu xibaar ñoom nag ñu ngi bëgg daal ñu jàppale leen ci lu jëm ci seen yëngu-yëngal yi bokk na ca 21 décembre ñaar fukki fan ak benn ci weer wi ñu nekk ñu dal ci amal seen gala bi nga xam ne at bu jot dañu koy amal ñuy ne rek ne ñu ren jii jël nañu raaya boo xam ne dañu ko jagleel awa Marie Coll Seck wàllu wér-gu-yaram ba noppi it mu nekk sportif bu mag ndaxte da daan def li di euh, basket euh, dañoo demoon euh, ci seen point de presse ñu fa wuy ji loon Mamadou Ndiaye la ànd ci ak Yunus Diatta ñi gën xarañ ci tàggatu yaram ci atum 2013 war nañ leen sargaal dimanche bi ñaar fukki fan ak benn ci weeru décembre. ay fan rek des ñu amal bile xew-xew association bi ëmb presse sportive bi xamle ne ni budget bi matagul xaalis boobu sax mi ngi toll ci ñaar fukki millions. peut-être am nañ ci 12 13.

ministère bi waron nako ko def wala ñi nga xamanteni ñom lañu wax délégataire de pouvoir muy fédération yi muy comité olympique ñoñu waron nañ ko mën def mais ñun journalistes nous avons... jël engagement né dañ koy def pour animer la vie sportive au Sénégal. ci juroom ñenteli édition bi ki di ministre de la santé di Eva Marie Coll Seck moom la jox prix personnalité publique de l'année mu nekkoon kuy yëngatu ci wàllu tàggatu yaram. personnalité de l'année aussi wax nga dëgg personnalité de l'année pour ñun au plan euh, public. Mm, Awa Marie Coll sec la parce que Awa Marie Coll Seck ñu bare xamuñu ne moom basketteuse bu mag la woon ci équipe nationale féminine de basket équipe bu Bona bi équipe bu équipe bu Lyon yi ci année 70 yi. léegi mi ngi ci action publique bi mooy ministre la santé te gis ngeen liggéey bu rëy bu mu def ci affaire Ebola bi kon nag loolu aussi nit ñi war nañu xam ne kii sportive la woon. léegi mi ngi ci action publique bi mi ngi koy réussir kon nag bëgg nañu aussi kooku ñu jox ko benn prix presse sportive fas yéene sargal sportif yi gën a xarañ ci atum ren bi waaye fàttewuñu ñi ñi nekkoon ancienne gloire fii ci réewum Sénégal. si nañu ci gëstu bi soxal wàllu politique tey ñu jagleel ko ñi nga xam ne dañuy ànd ak euh, ñi fare ci camp présidentiel euh, seen gis-gis bu wuutee ak euh, bi nga xamante ne si moom mooy bu camp présidentiel nan la war a mel tontu li ak Codé Ndiaye. parti gi di faral di am ay jafe ngir wax seen xalaat. bu ñu sukkandikoo ci cadeau yenn citoyen yi parti bu nekk dafa war a mën a wax xalaatam donte mu nekk ci biir coalition présidentielle bi. Ah, si réewum démocratie nit ku ne fi nga nekk war nga mën a joxe sa xalaat sa point de vue ci ni réew mi doxee li nga xalaat nga wax ko man kenn yaakaar naa kenn du ko kenn. pour moom kenn dong do kaa yorul dafa nekk ñoo xam dañoo dañoo booloo woon ànd ak moom li nga xam si moo mën nek nekk mooy moom lu mu def du na waaw rek dafa am yenn xam ne ay qualité da ci am da ci am yoo xam ne mën na wax yoo xam ne si mën na nekk mën du nekk. su fekkee war na dëgg dëgg war waruñu xool parce que kii mooy président rek moom la ñu ànd que lu mu def rek baax na quoi. ci gis-gisu Georges Nesta Diop di ab journaliste ab parti politique mënul nekk ci nguur gi ba noppi mel ni ku nekk ci opposition. yee moom politique surtout respect am na si. mais nak bon li am liberté de ton bo xamné ne munoo nekk euh, man suma suma suma waaye nga suma allié nga euh, bu problème amé nga génn ci mbedd mi di wax di di wax nula nexé ak lu sans pour autant sax nga laaj ma suma avis parce que euh, quoi qu'on dise bu féké ne comme buñu ñu ka kaawu beno Siggil beno Bokk Yaakaar alliance bu mag la alliance vraiment quand kenn mos man mosuma gis sax alliance tollu noonu donc bu féké ne problème amna sen biir euh, mënu nous mënu ma comprendre par exemple que Beno Siggil Sénégal bi nga xam ne si la di génne na la mais ñun dañuy adressé correspondance dañoo bëggoon euh, président leeral ñu leeral ñu. Georges Nesta Diop di xamné né parti bu nekk ci coalition présidentielle dafa am nu mu wara communiquer lu dul def ay communiquer ci presse bi. ñu cadre bo xamné sinon même buñ ko amul nañu créé cadre bobu manam créé cadre waxtaan bo xamné ne euh, nañu nañu waxtaan seen biir ba paré bala ñuy gën ci si biti di di expliquer seen problème parce que sinon boo ko deful rek bu fekkee ne alliance la mais kii day tëju fële di waxtan kii day tëju fële di waxtaan euh, loolu nekkatul alliance sinon boog bo alliance bo xamné ne kenn xamul fi ngay dem ku nek donc euh, genre lu ñu tubaab wax armée mexicaine ku nek sa patron bop nga alors euh, ku nek tamit da ngay waxé nu la neexee te alliance dafa am war am lu ñuy wax code de conduite. nek ci mouvement présidentiel bo nopi di wax sa xalaat mu don mbir mu dul faral di gis ci Sénégal. donte mën naa ne Georges Nesta Diop di xam ne ne am na ay anam yu ñu ko mën a defee lu dul dem ci presse Codé Ndiaye ponk bu mujj bu xibaar yi li ci yéenekaay yi Mamadou Mouhamed Ndiaye lañ ci àndal. jërë ngeen jëf ku ne wax ju ñaw te ñagas ji Abdoulaye Wade dëkkee saxal ci noppi Macky Sall yi saful makki Sall xamoo li xew observateur mi xam li xew nee ñu kàddu yu ñagas yooya kàddu yu tuuma yi Abdoulaye Wade yi gàll ci ndoddal Macky Sall ku njabootam yëf yi naqari na Macky Sall ba fa kanamu yàlla journal bi nañu donte du ci wax ci mbooloo waaye bu wéetee ki ñoñom li mu leen di wax moo di Abdoulaye Wade ay atama a jaaxal moo tax xaw ma ni mu koy def jamono ji tal naa leneen lu dul nekk fi naan maa ngay defonteeg màggat moo xam ne ay atam fukk ko manqué téeméer dama koy bàyyi ak Amath Dansokho moom la tollool moom la war a defonteel Abdoulaye Wade ak waa Parti démocratique Sénégal Macky ne xam naa leen bu baax du ñoom ñooy ñi ma mën a indil ay cool cool seen yéene yëpp moo di taxañ sama mandat bi jële ma ca palais ba ñëw dellu si fi waaye loolu lépp day gudd Abdoulaye Wade su bëggee mën naa koo daggal ab nekk ca palais ba laa si ne kenn ñu moom Abdoulaye Wade moom am na lu mu war a lijjanti ne ndaw yi ICTEL yi nga xam ne dañoo war a defaraat seen bureau bi tey yi ci ngoon ñuy daje te seen daje ba bu ñu moytul lu ne mën nga fay seen fitna enquête dina kay mel na ku naan laa si ne kay xamoo li xew daje ba amatul Abdoulaye Wade ci boppam moo dàqalu yëf yi ndax jamono ji nga xamante ne ji ñoo ngay ragal fitna am ca jamono ji nga xam ne ñàkk déggoo am na ca jamono ji nga xam ne giitangaas gu rëy moo am ci biir ICTL ci kan moo koy jiite Abdoulaye Wade li mu santaane moo di ndajum ICTL googee nañu ko acc ba jëmmi jamono ne bari nañu jàpp ne ndajamu su amee dina bari lu mu yàq ñi gën a soxlaa defaru bala ñu yàqule populaire nañu moo di waa APR bil journal bi juróom-benn at ca ba parti ba taxawee ba léegi yéen a kaay bi nañu parti beeg ni muy doxee informel gu mat sëkk la ci cuune la ñuy dox loolee mooy li gën a sonal Macky Sall mooy li ko gën a togg fitna député Sira Ndiaye nañu ci xëtu njëkk journal bi base yi parti bi di APR faw des koy teg ciw yoon structuré ko bu ñu bañee coow ci suñu biir kenn ku bokk ci ñoom waa APR doon fa kàngam maanaam responsable moo xëy ci xëtu njëkk Le Quotidien mu di na maître Nafissatou Diop Cissé journal bi nañu notaire baa ngay defante fi Nafissatou Diop Cissé door fa jes neeram somo bu ñu daamee na kaw ba suuf fa teg ci tagalam fas kanamam boole kook roog a jeeru gu mitti waxtaan wu yàlla séq a jóge ci biir APR mu ne borom parti bi Macky Sall teeru bu rafet la ko teeru yéeneem moom Maître na ñu leen di a waxtaan wi mu séq ak dem na ca baleen di leeral ne yoon wi nga xam ne moo dox diggante Fatick ak dañu ko doon defar loolee lu ko ñoroon la bañ na ko ba ba muy def rentrée politique bokk na ci li mu doon waxtaane keroog bu mu yégée ne premier ministre bu Sénégal ànd nag ñi ko war a liggéey ngir doon liggéey boobee te kenn boolewu ko ci lu ko mitti la te nag loolee nee na du ci tudd kenn ku dul Mariama Sarr li tax kenn boolewu ko ci kenn yëgalu ko ko loxo Mariama Sarr ci la te du guléet Mariama Sarr di def lu Mariama Sarr la ñu fa tànn ko ndax mooy maire ba gayi la ne ko ndax da am xaar ma yàlla ak Mariama Sarr mu ne leen bëgguma di ŋàññiw nit waaye li mën a wax moo di Mariama Sarr ak ni mu doxalee du gulet mu koy def premier ministre bu Sénégal Mohamed Boun Abdallah Dionne nag li mu defoon keroog gaaw di génn janok taskatu xabaar yi di weddi li ñuy wax ci Petro-Tim ak ArcelorMittal réew mi quotidien na nañu mbirum ArcelorMittal googe Parti démocratique Sénégal rek ñoo weddi Mohamed Boun Abdallah Dionne américain it weddi nañu Boun Dionne leneen loolu wax nañu ko moo di ñaari téeméeri milliards ak fanweer yoo xam ne trésor ñàkk na ko Ousmane Sonko di njiital parti nañu xët mu njëkko direct info mu di wàllu pétrole di wàllu mine Sénégal musu am grand place nañu mbiré ngi mu ngeen xamul woon ci wàllu Petro-Tim te mu jugee ci Aïda Sow Diawara li mu wax moo di Aliou Sall la sinekaay xooli amoon na fa ba tax na layub taye bu njaay boobee dàq nañu ko ba juróom-ñeenti fan janvier populaire na ko juróom-ñeenti fan mars yëf ya janvier mars la député nday aw mbocc ca yoon la jëm ak waa ji di Ahmed Aydara bi lu observateur député bi moo ko porté plainte ndax nee na Ahmed Aydara da ko saaga fenal ko tegal ko ci Mohamed Ndiaye sant nañu la di la gërëm yéen tamit naka noonu ci teewlu bi ñu yendu jàmm